bi xiif mar may jaayu di fecc na Macky Sall du ma fecc waaye way bi neex na de je suis solidaire. Vraiment, je ne ressens pas. J'ai quelques, souvent quelques coups de fatigue, mais je les surmonte vite. Hein. Vraiment, je suis en forme. mën nañu organiser benn concours. concours xëy na moo nu raw moo nu raw parce que moo nu gën ma kii mais gars yi ñeneen gars yi moom. yaakaaruma leen quoi. kenn ki biir bi dafa rëy. dafa ndaw lu bëri. kenn ki daama la. dama koy romb rek door ko fu dem. Issa moom Issa moom yaakaaruma nu mu posé ma problème. donc lu ma ko xëy na ma ba mu dem rek ma xëcc tubéy tubéy ñu wàccee muy defoon n'avais jamais vu attaquer personnellement qui que soit. Le débat auquel j'ai toujours convié le, Sénégalais sont des débats d'idées, des débats qui permettront aux Sénégalais de juger quel est le meilleur programme. Je ne me contente pas de critiquer ce que fait le président Macky Sall. Je ne serai jamais de ce chapitre dans lequel ce sont les injures, ce sont les invectives, ce sont les muscles qui vont régler le problème. Je ne serai présent qu'au rendez-vous du débat des idées parce que je sais que c'est ça qui peut me faire avancer le Sénégal. waa Kédougou. Macky Sall dana fi ñëw. su ñëwee ngeen wax que ni que. defalu loonu dara. waxu loolu dal sunu xel. yàq nga Sénégal. dañu bëgg nga jóge ci réew mi jël say bagages. <laughs> naqar gi kan moo ma ko teg Macky Sall ak régime am démb si suba bi ma jógee Matam dama dem Kanel ma jógee Kanel ñëw France si Bakel xaw ma ñaata temps def yoon wi ma su ma gis yoon wu naqadi bu raw yoon wu yoon wu mel noonu ma defe ni su ma ñëwee Bakel danaa wax ma jógee Bakel ba ñëw Tambacounda métti bi gën am doole ma xam ni ñuy wax dëgg yàlla danoo fooyee Sénégal <laughs> ku yaakaar ni Sénégal rek mooy Dakar soo demee jël huit cent milliards huit cent milliards nga bëgg a def si trente kilomètres de train alors que tali yi mi ngi manqué fii Macky Sall bëgg jël huit cent milliards di ko def si trans euro trans euro express boo xam ne jam ñaajo lay yam trans Trans Euro Express. <laughs> démb dama dem Gossas toj ko. nga defe ni fa lay yem ma dem Fatick toj ko. waaye nag ma ñëw fi toj ko rajax. léegi kuy tuddati Louga na wax ni Louga toj na rajax. borom yiw day neex deret noonu ngay sante sa borom ma dellu siwaat si. Louga toj na rajax <laughs>